Serás, serás, serás, serás, serás. Giro. Serás, serás, jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen saa di leen wax ñoo ngi seen télévision wasaare tey ñoo seet si benn bër xale boo xamante ni dafa bokk parcelle bokk dóor dóoraat nekk ci xale yoo xamante ne dañoo am ci ñoom yaakaar ñu koy woowee Giro Seras nekk xale boo xamante ni su bëree mu neex bu bàkkoo mu neex te du bëree benn combat bu yomb tey ñëw seet si ko fii ci Unité 4 Parcelles Assainies ñoo fekk fii mu toog ah moom ay gaayam ñu koy wax daara yi maa ngi leen di nuyu di leen di leen bëgg bu baax baax sama gaay maa ngi nuyu de mbër nuyu naa la. waaye Ousin delloo siyaar bu wér. yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu wér a wér kay. ñoo seet si la fii pour waxtaan ak yow. woy loolu rafet na. yow nuyuwaat naa. waaw maa lay fay Ousin bu baax a baax. waaw ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi ñoo ngi sant suñu ñaari waajur xam nga di sant waa parcel yëpp waaw di sant waa Daaru Salaam di leen waaw di leen ñaanal ko waa si màggal Daaru Salaam bi ñu nekk nii lépp lu ñu ñaan rek yàlla antul ko ci barke Sëñ Fallou. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp na boroom daal di sant Baye Fall yi ñu may nekkal waaw maa ngi sant ñëpp wàcc sëñ Fall. balaa ñu nuyoo sax dañuy jaale ki nga xamante ni dafa bokk ci làmb muy Jules Baldé ku ne xam ne li mu def ci làmb bokk ci làmb tamit yàlla moom ko ñu koy ñaanal rek fa mu jëm gënoo ko fii mu jóge waaw loolu ci làmb la yow ku ne xam ne sa digganteeg waa Pikine lan ngay wax ci ci ci ci ci ci jóge mu fi jóge ak lan lañ koy ñaanal. dëgg la loolu moom xam nga comme nu mu sogee ñëpp. parce que xam nga façon dee bu nekk gis nañ ko mais maanaam xam nga affaire nu mu sogee ni ñi quoi. dafa metti waaw dafa metti waaw ñu bëri yaakaaruñ ko woon di ko ñaanal lekk fi mu jëm yaa gënal ko fi mu jugee nii ba ak sëñ waaw suuf oyof euh, si kawam barke alxuraanu karim. waaw pour ñuy borom nag seetaan kan mooy Guiro Séras. waaw Guiro Séras benn tout tànk rek bu dëkk fii ci parcelle bi dëkk fii si koñ bi waaw fi laa juddoo ba ni ma toll nii parcelle laa xam parcelle laa miin. waaw amaana yeneen secteur yi tamit am naa fay nit am naa fay ñoo xam damay demalanteeg ñoom affaire yooyu noonu waaw mais man parcelle laa xam waaw. lan moo la ci làmb. man moom boo gisee ma gën a dugg si làmb waaw parce que waaw ba bàyyee jàngu ko waa dama doon fréquenté ginnaaw raay xam nga gis bàcc mu neex ma affaire yooyu noonu looloo ma gën a gën a dugal si làmb. yow ak bokk leen dara. non nekkul comme dañoo bokk ni dara quoi mais maam dafa nekk nit koo xamante ni barki démb rek maam moom ñoo ngi déggante téléphone waaw dafa sama grand la sama lépp la waaw. fu foo jëlee tur Guiro Séras bi. non Guiro sant la. Mhm. man Guiro laa sant quoi. sant lan. sant Alpulaar. Mhm. dama dégg ñu bi nga nekk booy da nga ësoon ñëpp naan booy bi bandi la dafa sob lan la. non dëgg la. amaana tey ji xam nga nit ku nekk ak ni la yàlla bindee. Mhm. xam nga du ma bandi quoi mais bandi du ma yab. doo bandi mais bandi la waaw luy loolu. noonu laa mel. noonu laa mel quoi man yenn yi nekkuma si. Euh. waaw ñun ay Baye Fall lañ quoi. waaw ñun waa xam nga ñun ay Baye Fall lañ te maam Saliou Fall lañ yaakaar borom daaru xofo. mais est-ce que du bandi est-ce que Guiro Séras du bandi parce que Guiro gis nañ dafa ës. yooyu dafa ës bu duggee ci làmb combat am du yomb combat am du metti lan la est-ce que looloo tax dugg ci lamb est-ce que nekkul li nga ës tax nga dugg ci làmb. waaw amaana loolu tamit mën na nekk quoi xam nga nit ku nekk maanaam xam nga maanaam ak sa destin quoi. mais man même bu dul làmb bu dul dara sax man sa moroomu góor du ma yab quoi man noonu laa mel même bu dul làmb sax. waaw moo tax amaana bu ma demee si làmb ji nii ñu bëri dañ may jugeel di ma tapel lu ne mais sëñ Fallou amul problème. lan ci làmb. non amaana plaisir bëgg-bëgg nekk tamit si koñ bi xam nga bëgg bàcc seeraas di ko seetaani dem ba ñëw fii di seeraan ay ñum zos gaay yëpp dem ba dugg si écurie bi di bëre mbapat waaw. zos ak seeraas mi ñu bëre boobu fu mu la fii la ma fekk si koñ bi. amoo ci woon problème ni ngay demanteeg bàcc seeraas diggante problème de. da nga ne écurie zos boobu nekkuma woon écurie zos. waaw no man zos sax xam na ko si man man bàcc seeraas laa faral ak ku mu munti bëreel man du ma triser quoi. <laughs> buy su may bëreek moom sax Bathie Seras maag Bathie Seras ñuy bëre moom laay foral. ñaata combat nga def. instant maa ngi ci onze combat. waaw. ñaata victoire. huit victoire ak trois défaites. Hmm. dama dégg ñu bàyyi ñu ne Guiro Seras dafa mel ni amul plan de carrière ndax Guiro Seras combat bu ko neex lay jël Guiro Seras day jékki-jékki am na combat fi am est-ce que Guiro am na staff. non amaana ñu bëri noonu lañ koy gisee ko mais xam nga mu noo nekk booy di entraîner. xam ñu woo na ne la yàgg diw combat ngay xool ndax baax na wala baaxul kon balaa càq xam nga ñu xooli leneen du ma tànn adversaire quoi mais tamit xam nga amaana tey jii ni gars bu ñu xoolee ñu war a bëre rek bu boobaa affaire yi du métti mais yenn saa yi tamit ñooy xool xam jol ay mbër tànnal leen yoon tànnal leen ay adversaire moo tax amaana xam muy demee noonu est ce que du est ce que du loolu moo la tardel parce que boo jógee jël ci lii am victoire jógee dem jëlaat kii est ce que du loolu moo la tardel ndax nga def onze combats. Mm. onze huit victoire ba léegi nii Guiro Soras mënul yegg benn niveau bi. no dëgg la lool noonu ñu bëri dañ ma koy kii <clears throat> dañ ma koy rapproché quoi di ma ko wax mais amaana tamit xam nga jaam ak pexeem yàlla ak dogalam man yàqamtiwu ma dara waaw parce que man xam naa ne tôt ou tard <clears throat> dinaa ko gis nii dama koy gis nii quoi parce que loolu day ñëw. waaw yaa xam tiwuma dara tey jii nit tamit bu ñu la poussé pousse ak lu ñu la munti pousse boo demee fi nga war a yem rek ngay yem waaw moo tax man tey jii duma ma tànn adversaire waaw du ma xool lu nooy tamit waaw même bu ma jógee si défaite tamit bu may ñëw di bëre du ma xool lu nooy bu doon loola rek bëre naa ci ouverture saison bi. damay ñëw léegi am ku ma tasal na ko yow saa saa seet mënu ma soo demee laajal que moom entraînement yi moo koy teg ci yoon ndax bu amee combat bu sumee ko du changement. combat yi ba état bi mu yor moom rek lay maintenir ba léegi. lan la entraînement yi moo doyul wala récupération moo doyul wala boog danga nga amul ñu lay jàppale. noo dëgg la amaana tey jii nii xam boo nekkee xale nekk ak ay xale yoo xamante ni ñii ñooy jël seen lépp seen xaalis ñu ma nekkal ni ñoom lépp ñoo ma koy defal xam nga tey jii boo buggee nekk booy tamit di entraîné bëgg a doxal sa bopp ay musique xam nga yenn saa yi day métti mais teewul tamit sama 94 kilos yi ma ko sama bopp quoi waaw parce que bëri naa ku ne. amu si problème. ñu gis la sa combat bu su ma xamu mujj wala bokk yow ak Boy Dakar. Mhm. muy ndaanaan ngeen bëgg combat bu metti te yàgg. dëgg la lu tax nga jël Boy Dakar. maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom Boy Dakar. dëgg la maa ngi koy nuyu au passage tamit xam nga di ko ñaanal yàlla affaire yi jikkoo tamit xam mais tey jii ni quoi boo gisee sax ñëpp xam nañ ni Boy Dakar ndaanaan la mais boo gisee ma jël ko dama ko jëloon pour wane sama bopp mais xam nga si biir ñëw indi làmb quoi après làmb da lay jàngal làmb noonu la demee. lu ci bëri da ñëw ba làmb ja naagu lan la te ngay jàkkaarloog sama naataangoo mbër mais da ngay ñëw ba ci làmb ji da nga yab say supporter wala lan la da ngay ñëw ba ci biir daal doo respecté sa adversaire. non du du cadre yab say supporter sax amaana tey jii boo bëree mbapat quoi nga am ñoo bëreel. tey jii maanaam ñi ma bëreel mbapat adversaire yi ma doon bëreel ba léegi bëréew ma ñoom arène moo tax tey jii bu may bëre arène sax ñu bëri dañuy jàpp ne damay foo walla dara. comme ñan nga doon bëreel mbapat. non bëri na tey jii nii am na ñoo xam ne ay. champion bëri na mbapat. non bëri naa mbapat kay bëri naa mbapat ba sonn. <laughs> gaa nga wax moom wax dëgg yàlla moom ah. mbay guy gi. mbay guy nañ ñëpp waaw. yaa maa moom fii lañ doon bëre si école bi fii. sama premier combat mbapat fii laa ko bëree fii booy ñi ko toggal. bu ngi bëgg nangu émission bi de. non Guiro Seras toj na mbapat toj na mbapat est-ce que toj na mbapat. parce que dañoo gis làmb ji yaa ngi ci dugg mais xaw na des tuuti waaw est-ce que Guiro Seras mbapat na. non dëgg xam nga tey jii moom boo nekkee di wax ci sa bopp rek amaana ni ñu dañuy fóone dara. waaw mais ñi seetaan xam nga xamuñu. Mhm. il faut que yow tamit nga wax ñoom ñu mën a xam. non ñii seetaan xam nañ man yàlla dafa dogal ni <clears throat> kii nii mbapat quoi. li ko dalee Soumbédioune ba jom ñaajo fépp bëre naa fa mbapat dama doon bëre làmb tukulóor di bëre lamb séeréer xam te teewul tamit damay bëre si lébuy damay bëre fépp man awma problème boobu noonu. ok est-ce que noo gisee corona bi mu ñëwee ak mbër yi ñu daan entraîné toog dem entraînement géej wala dem saal yooyu yëpp ñu arrêté ko nu doon dundee boobu. non parce que ba feebar bi ñëwee ba léegi dafa déstabiliser ñu bëri maanaam tey jii nii lu bëri loo xamante ni li ñuy programmé woon nañ ko dafa yàqu waaw dañuy ñaan yàlla rek xam yàlla moo xam lu tax mu def ko. yàlla teggi ko si ba sëñ Fallou. ñoo doon dox sa combat. waaw ñoo ngi doon dox sama combat. yow ak ñun. waaw wala yow ak yaa kan. waaw waxoon nañ ma ak Abou Ndiassé. Mhm. waaw ak maa ngi Nokia. Abou Ndiassé moom mu lan saa. waaw. Ndiaye si diis na de. kooku di tapet. dinañ ko mbaa boobu. tapet la nga wax Abou Niasse tapet dafa mel ni dégluwoo émission bi si biir wax lim la wax. chaque fois retouram bëgguñu lu yomb ñun ñun ñun. ñun. Eh, abu Niass moo la gën a xam du jël giro ñun xam nañ ko xam nañ du ko jël ñun xam nañ Abou Niass du jël giro ndax tapet la ñemewu ko barki Serigne Bamba kàggu ma lii mosuma koo gis mbër maa ngi toog suba tey yaa ngi wax dañoo xam suñu mbër de barki maam Seera Fall fi ñuy daje fi ñuy daje Abou Niass xam na sa waay taxaw Abou Niass bu suñu mbër du nelaw barke maam Seera Fall yéen bi di tey jii nii bu ñu bu ñu nekkee di wax rek may naan abu Niass li Abou Niass li day mel ni dara mais ku wéet xam sa bopp quoi moom lu tax moom jëlul avance moom xam na ko man xam naa. mais est nekku que nekkul tam dalaa raw ci làmb parce que boo xoolee combat mujj moog Tapha Gueye dëgg ñoo ko ba bëri. munu munumaa raw si làmb. noo gisee combat boobu. munumaa raw si làmb quoi. <laughs> waaw maa ko ëpp victoire maa ko ëpp victoire ñu ma ak ñoom waaw maa ngi moom bokkuñu na tey ji sax bu ñuy wax suñu combat làmb moo tëre di moo tax waaw mais man tey jii ni ay antila la soxla wala ñum bul laal affaire yooyu noonu ay Abu Ndiaye xooluma ko sax. wër a sëñ Fallou. ay bul laal wala anti. waaw non non jën kere boo war a ñu bëri. non anti anti baax na. déet waxal gars yi ñu toog lii ñu laaj ñi yeggagoo foofu. Serigne Bamba jën kër rafetlu ñoo ñu bëre. Serigne Bamba amul boo yu jën kër tapet la def ci dara day comme ni bëre mbër ki muy laaj yeggagu fa kon boo yu bëri du ñëw. mille garab mille mais kon boo yu bëri ba léegi ñu ngi si suuf. Serigne Bamba. booy nii la ñuy def ku mën a kii rek mais kii kéwal. booy lañ kaagu lii paasal rek la am lii paasal dong la am mais est-ce que yow ak anti combat bu neexee ngi noonu no dëgg la xam nga rek tey jii nii ñoom dañuy toog fi ñu toog ñu leen di tànnal yoon di leen utal di leen utal yoon quoi te ñun amaana tey jii nii amuñu yenn maanaam xam nga nit yoo xam ne dañ ñuy utal yoon comme noonu mais tey jii maa la koy wax si biir wax ku wéet xam sa bopp ñun ñëpp dañuy tase quoi dañuy tase si biir stade yi dañuy tase feneen ak feneen waaw mais moo ne moo tax ma ku wéet xam sa bopp anti moomu noonu laa la wax de barke alxuraanu karim maa ngi moom bu ñu daje woon fii léegi lu ma ko wax lay def. boo teg loolu gi Saas anti da ëpp doole anti ëppoo ko doole lu leer laa lay wax. man li muy teg koy bi nga doon wax moom nga bëgg a andi. non non du loolu mais xam nga la mooy problème bi tey moom li muy li muy li muy tegal mbër yi quoi ak li muy ñoddil mbër yi man loolu laa gëmul dund ko sax moom anti boobu. man gëmuma loolu quoi. lan lay tegal mbër yi. non xam nga tey jii nii ñëw am combat ñëw tegal mbër bi sañ-sañ tegal ko benn affaire xam nga tey moo tax man ma bëgg a bëreeg ñum Abu Ndiasse ñum anti quoi ñu xam nu mu demee. bak sëñ seen biir ruube leen quoi. noonu la demee barke alxuraan. nu ngeen entraîné fii ci école bi. non nga nekk équipe doo dooraat Garga Mbossé nekk seen leader. waaw au moom quoi ba saison bi tijjee ñoo ngi doon ñëw normal mais ak problème feebar bi nii gars yi ajoon gars yi dispersé wu ñuy dem géej ñuy dem fu ne mais xam naa après fira et mesure bu affaire yi kiiwee nag dinañ mun a dellu si waat incha allah. fi mu toll nii lay contacter bu baax parce que bu ñu xoolee combat yi commencé gaa saison bi tëj na mais combat yi commencé na taxaw. oui lu leer ñoom Fallou Ndiaye mooy wax sama combat ñoo wax sama combat. sa combat. parce que dama gis gars yoo ngi toog sànq bu léegi ñoo ngi waxtaan mais ku ci nekk moo ngi bëgg sànni kàddu. jàmbaar nuyu naa la. naa la gaan. yaa maa ngi am bu baax. soo amoon la neexul ci moom wala boog la nga xamante ni bëggoon nga mu yokk ko lan lay nekk. entraînement kese yokk entraînement yi bu baax parce que ñun dañu war a bëreel quoi ay abu ñaas yi ñuy jox ni dañ leen di tax may bës quoi abu ñaas la dafa def. jën kër du dox du suñu. suñu patron Gaga Mbose. suñu patron ban. Gaga moom day combine bëre moom moo coince dañoo combine. Sénégal gi yëpp xam nañ loolu. waaw ba ñu dugg ci loolu. parce que Serigne Bamba day combine bëre ñu duñ combine. mais jën moom du seen morom tànnal ko suñu morom jën la la fa def lu ñu fi deful jën kala fi ñu fi daanul. bañ a kaye kan bañ kooku duñ moromam nag ñëw jën kayre ñun kooku lañ soxla soxla wuñ ay abu ñaaseek ay xaw ma anti mor xaw ma anti xaw ma nan genre mbër yooyu. gars yi defu ñu fi dara. anti ndaanaan la de. barki Serigne fi. anti toju fi anti xam nañ ko waaye moom signature la mën de bu weesoo signature bi pare na ci mbaru signature la parce que Serigne Bam to ñooñu ba xam nañ sa waay de waaw abu ñaaseek anteek xam nañ sa waay ñoo bokk dund yi fii ñoo ngi nii si peggu ñaay bi lañ dëkk ñoom xam nañ bu baax. mais lu tax mënu leen mënu leen am état te ngeen dëkk ci peggu ñaay bi. mais liggéey bu méttee ko waral. parce que Serigne Touba mais bu defal li mbër yi def kon es weesu nañ ni mbër ñu ñëw ko ni ñu ko bëggee non dafa ndànk lan mbër yi def ñu xam nañ ko naan ay anabolisant te nu la neex ñëw taxaw ñu new si yokku maas say say dèjà que yow say day yàqu ñaata bëri fi joo xamante ne doo ñàkk affaire yu mel noonu ñoo xamante ne moom doo ko digal lool déet ko bàyyi ak dundee ci rek meew bi rek ñun bi dem sax di am gën waa liibar sax baax na ñu moo ñu gënal quoi mais pas naan fi da nga war a yokk maas nga war yokk maas nga dégg loolu ba dem naan fi loo xamante ni après du la arrangé xam nga ñun kii roi de arènes lañ bëgg ci moom waaye mu def carrière quoi carrière bu gudd mais pas mu yokk maas boo xamante ni du du doole loolu amul sens quoi ba yokk maas dafekk maas bi nga yokk nekk doole gars yu bëri yokk nañ fi maas yoo xam seen maas yi amul leen benn njëriñ waaw ñun ñu ngi si peggu àll bi sa waaye trois heures dem dundee nekk fa ba 6 heures mbëri dañuy ñëw mbëri dañ ko fay fekk dañ ko fay bàyyi dem ñibbi mbëru Pikine yeeg mbëri gaa yu bëri wax yooyu ngay wax noonu gaa yu bëri wax yooyu. man kay waxuma ko moo ko wax. mais gaa yu bëri wax yooyu ñoom bu ñëwee si dund dañuy ñëw entraîné ba bàyyi fa sa waay dem ñibbi barki alxuraanul karim. bu ñu weddee bu ñu weddee li ñu wax. dañ jël abu ñaasa jël anti boobu noonu ñu ñëw sa waay dirigé leen entraînement bu fekk den ko yeggale yàlla ma jëriñu sa waay entraînement bu métti rek ko ko jàpp barki Serigne Bamba gars yi bëgg na la de gis nga sas liñ lay sas. no loolu dëgg la sax parce que ñii nii samay grand lañ ko tamit boo fi joxoon même xale ndaw yi koo fi jox loolu lay wax ñoom loolu kese lañ ma sas wóor na sëñ Fallou noonu la demee maa ñoom nekkul question de làmb quoi maak ñoom xam nga ñun ñoo bokk ko ñun ñoo far comme ni ñu gisee nii nii la ñuy daajee ñun ñëpp ñoo far wóor sëñ Fallou. bi nga daalee bëre ba léegi ban combat nga bëre bu la gën a neex. combat. boo xamante ni bëri ko nga si kontaan yëg sa bopp xam ne tey jii moom làmb ji jox naa ko mat. waaw sama combat ak Cheikhou Douane ak sama combat ak Agogo. waaw parce que ñëpp dañoo dañ may daan quoi mënu ma mënu ma dóor ko mu daanu ak Cheikhou Douane tamit. Agogo men man hmm. hmm. eh, combat moo la gën a metti sama combat ak Boy Dakar. lu tax mu gën laa metti non damaa xam ne maa ko mën mu daan ma. Serigne Touba noonu la demee. yaa ko mën booy daka amagul defet non dëgg la. mbokk yi daan Tigo. dëgg la ba léegi maa ak Tigo bokkuñu xam nga tey jii di nga bëre ku la koo xam te ne yow leer na ni ki yaa ko mën mu daan la quoi parce que làmb moo demee noonu waaw yàlla moo xool ku ko neex mu may ko ak sëñ Fallou. te bu ñu jugee ci loolu gis la ngay dund nii. dundoo mbër yoo xamante dangay da ngay bëre 4 combats 5 combats dem dëkki feneen wala dem di toog chaque jour damay ñëw di la fekk ci koñ wala boobu ma lay romb fii sa diggante ak ñoom lan la bëggante boobu noonu. non man moom wax dëgg ko quoi man fii laa xam fii laa miin fii laa am waaw man waaw parcelle mooy sama secteur quoi weesu dafa rawati nag indi ñun fii lañ xam waaw luñ fu ñu mënti dem ak lu ñu mënti am ak lu ñu mënti mel mënuñu ko jaay ñi ba mu leen ba sëñ Fallou parce que ñu ñoom gars yi fekkee nañ lépp xam nañ nu mu demee barke alxuraan gars du ñu seer quoi xam nañ nu mu demee. waaw dégg sa waay léegi mu ne roi des arènes ngi bëgg est-ce que loolu moo ngi sa xel. pourquoi pas. non am ñoo xamante ni nii magasin nga cay fekk dafa am ñoo xamante ni dañoo bëgg dugg ci làmb pour marquer seen empreinte am ñoom xam bëgg nañ coo dugg pour siiw waaw ku ci nekk yaa xam la duggal ci làmb. non man moom wax dëgg yàlla bu doon loolu moom ma tax a dugg si làmb quoi ma dem Modou Modou waaw parce que su ma tey jii su bu doon loolu la rek man làmb dama ci am plaisir quoi di ko def. bëgg la ci bàyyi. waaw dama man dama dama ko am plaisir di ko def quoi bu doon tey jii damay dugg si làmb pour am si benn affaire ni daw kon ma defee ko neneen. ndax làmb ji daa métti maa ngi nuyu mu ndaw moom dafa mel ni daa daw léegi moom tamit. non sa dawul. Ah, daw na kay gisatuma ko de. non tey jii xam rek faaw nga arrière quoi pour xam lu bari jàngat lu bari te yenn yi faaw mu dal ko waa nga mun a xam yenn yi faaw mu dal nga mën a xam àdduna après bu boobaa soo ñëwaatee rek day yomb si yow. yaakaar ngeen dina ñëwaat moom. ah ñun tamit ñun ay Baay Faal lañ ko waa ñun duñ daanu de dañuy jéng rek defaru ñëwaat. Hmm? Ah, baax na boo amoon mujj loolu ngay wax. tey jii nii su ma amoon kàddu yu mujj mu koy wax ci comme affaire CNG quoi. Mm-hmm. parce que tey jii nii CNG ñëpp ñoo yaan na fi Alioune juge jóge na fi Alioune jóge te tey jii nii maanaam <clears throat> dañoo war a jël dañoo war a instaurer la paix ak tolérance ak dialogue ci biir CNG xam parce que la tolérance mooy tey par exemple comme waa CNG ni ñuy jëlee seeni règlement quoi génnee ko rek teg loolu du yoon dañu war a woo ñëpp ñu wax ne carrément lii ak lii la waaw parce que le moo dialogue c'est un entretien quoi entre de ou plusieurs personnes xam nga c'est un échange d'idées non pas pour convaincre mais pour reconnaître l'existence et la valeur de l'autre moo tax moom mel ni intellectuel la de. <laughs> non du question intellectuel sax du question de intellectuel mais tey jii li ma lay wax loolu moo am quoi am nga tey jii nii bu ma boo déggee ma la ñu ñu jël la paix cultiver ko biir CNG parce que la pe se définit comme un état de calme ou de tranquillité xam nga li ma la. tamit elle peut signifier également une absence de guerre ou de conflit entre les hommes. moo tax tey jii loolu bu ñu ko instauré biir CNG rek affaire yi léppay saawaan. su ma déggee daal li nga waxee maanaam ni ñuy jékki-jékkee rek andi dogal ne nii la ñuy def yow ànduloo ci woon na leen ci mën a woo ci ñenn ci yéen ngeen toog waxtaanee ba noppi. waaw même tey jii bu ñu woowul ñenn si gars yi sax ñu xool maanaam ay foo dem rek am na ay ay ñoo xamante ne ay membre lañ yoo xamante ne soo leen wooyee ñëpp dañuy d'accord ni ñi nga woo d'accord nañ si xam fu nekk ñu woote fenn joxe règlement yi ñu ne lii la après boobaa gars yi waxtaanee ko. par exemple nga parce que le moo dialogue c'est un essence d'idée non pas pour convaincre mais pour reconnaître l'existence et la valeur de l'autre loolu kese ñu waxtaanee ko affaire yi yomb. kon yow su ma déggee ni gars yi di waxee naan Alioune Sarr na fi jóge yow ànd nga ci wala ànduloo ci. tey jii man moom xam ku dee ak sa bàmmeel. Mm-hmm. bu nekkoon sam papa quoi dama koy woo ba mu ñëw na ko bàyyil parce que boo nekkee si mbir quoi ñëpp ne demal da nga war a dem quoi si fair play dañ ko waroon tëggal benn journée defal ko drapeau ñu sargal ko mu dem ak moom. kontaan nañ ci bu baax a baax mbër la am na droit wax ci CNG ndax ñoo yor licence am su amee combat fa lay dem ñu bindal ko bu dem bu làmbam jeexee tamit fa lay dellu tamit jëli reliquat am am na droit wax ci làmb. kolo gaa dañ doon laaj ko quoi te jii boo ma doon tànnal adversaire. kan nga bëgg ma bëre. non nan la jox abu ñaase rek ñu def ko jaar jàll comme que moom wax rek lay da ko jox ñu fël-fëlaa la ko. kon la fa xumbee de. noonu rek la fa tapet la nañu jël ñu daan ko. nongo dañ ma bëgg a jox adversaire quoi kan nga ma bëgg a tànnal. waaw gars la jox ondu fu rek ñu mooy loolu ñu yóbbu ko retraite waaw lamb bundu lan wax de ondu fu lamb la. waaw sëñ Fane waaw comme li koy wax rek bàyyi ñu jox ënd mu bàyyi benn yoon. waaw ndax loolu làmb la xale ak borom daaru. wala na man kay na entraînement yi na xoolal yokkal ma cere yokkal ma ñeex na entraînement yi gën a waaw yow yaa ma gën a xam rek mais yooyu léppay ñëw. ma bëgg a souligner man waxuma ay affaire de ënd la fu yooyu noonu pour suñu waa quartier bi quartier bi laay waxal quartier bi. waaw comme comme bonne volonté yi fi nekk yi nga xam ne yàlla dimbali na leen car macha allah dañoo war a tourner dimbali ñun kii ñun lu ñu am lu ñu am ñun intekat man sa wax naa ko ko fu kenn nawut yaay sama Modou Lo yaay sama Balla waaw kii ku ma ko jàppalal waaw yàlla moo lay fay ndax moom nañ am ku mel ni ay Lat Diop foo ñu woo ñu wuy la yow xame nga ñu xam nga ñu xam nga ñu bu baax foo ñu munti woo ñu takk suñuy sareet daw ak yow fii ba Géejawaay premier jur bi ñu wàccee sa permanence yow da nga tiit waaw nañu dimbali si suñu champion bii man loolu la am lu ma siy wax encore une fois waa Fadia comme waa fajaa tamit noonu pas yi nga xam ne Giro xam na leen maire yeeg yenn grand yi nañ génn jàppale ko te yàlla rek tax waaw. profité si occasion bi quoi di wax maanaam honorable Lat Diop tey jii maanaam ñun dañoo ànd ak moom quoi ànd ak moom ànd boo xamante ni tey jii nii ñun dawuñu ragaluñu fi ñu féetee ñun si Lat Diop lañ féetee quoi waaw ragaluñu fi ñu féetee te yow yaa si war a jàppaat bu baax comme ni nga si doon jàppee gën ñu jàppale ak tontoo Bakiri ah ñoo leen woo ñëpp ba ci sëñ ñu jàpp si bu baax a baax. bisimilah inna yàlla ñi gërëm ñëpp ñu teew ci émission bi di leen sant di gërëm di gërëm sunu mbër. di ko sant di ko encouragé li mu bëgg yàlla na ko yàlla àggali waaw di am yéene ñëpp di ko jàppale ñun nag Unité lañ dëkk numéro 4 kaatu Mam Bamba waaw ku xam ku ne xam ni fii cuune dëkku fi waaw fii moom wax dëgg yàlla daanaka ragal dëkku fi cuune dëkku fi tamit waaw te te bëgg nañ sunu mbër di ko jàppale nag te tamit moom lii la mës a xam daal te si lii lay dund moo taxit ñun dañuy ñaan yàlla waaw mu jëm ci kaw ca kanam waaw te di ko ñaanal nag yàlla na ko borom bi may combat ci saison bi tijee ci kàttanam Onde le lañ bëgg nag waaw wax dëgg yàlla moom lañ bëgg nag waaw combat bi lañ bëgg waaw ndax ñu ngi koy wax fu ne te booy yëpp moom lañ bëgg voilà mais nag ñu gërëm au passage ñu ngi gërëm Alioune waaw ñu ngi koy gërëm bu wér voilà di ko sant di ko gërëm. Alioune Sall lay sant di ko gërëm ah di wax Alioune Sall mu ñëw jàppale ñu suñu mbër bii ñun xam nañu ñun pro ñun ci moom la ñuy liggéeyee ñun projet Fera lañ nekk kii lañ bëgg doon mu ndokk mbëru Fera booy jàpp ci yàlla tax rek waaw moom bu ñu gisee ñu xam bu baax Alioune Sall nag ñu ngi koy woo mu ñëw jàppale suñu waa i waaw muy gros serrage ñu ngi koy sant nag di ko gërëm. rek laa wax di nga kii Onde le Fou ah Onde yow laay waxal combat bi boo yee ko bëgg jëlal combat bi nga bëree Giro Seras ndax ñun instant bii nii amuñu dara lu ñuy xaar boo fi nekkee di xaar nañu dañuy dem xa bàyyi la jëlal combat ñu bëri waaw. tàggu ñu tëj. damay profité si occasion bi xam di sant waa Daaru Xufoor yëpp di sant waa kër Soxna Jébbu Fall xam di sant waa kër Maam Saliou Ngunda di sant ñëpp waaw di nuyuwaat xam nga waat Daaru Salaam di nuyuwaat sëñ daam bu baax a baax. ak sëñ Fall di ñaanal ñëpp ñu ma nekkal xam nga ku si mel ni su ma limee damay juum mais dafa am ñoo xam nit ñoo xamante ne maanaam xam ñoom du ñu changé quoi waaw mooy gars yi quoi Baye Fall waa Inte 4 ñëpp waa forêt bi président forêt bi xam nga booy ndaw tuur tànk yi suñu waa dëkk waa bundu xam nga di gërëm waa war jaxal waa Sokone waa Saatawaale ak waa Ndofane xam maa gërëm ñëpp waaw ñi may ñaanal di ma jàppale te yàlla tax maa gërëm ñëpp bak sëñ Fallou yàlla na ñëpp am jàmm loolu demee. gis nga nii lañ koy defee li ma leen ko waxee woon rek mbër bu ndaw wasaare xamewul mbër bu ndaw ak mbër mag képp ku am licence di bëree fu ne foo mënti nekk dañ la fa fekk jël si la maa ngi nuyu ñëpp di nuyu moo ndaw maa koy nuyu bu baax a baax ak waali sama copain chaque jour mën a ma jël si sama mbër mi xuloo xuloo nañ ci ba sonn maa ngi lay nuyu bu baax a waax waali sama booy marché yu ko waa marché Gueule Tapée waaw booy nga xamante ni su waa ngoon guddeeg bëccëg lépp loo xamante ne dafa doon loo xamante ni dama ko soxla rek ñoom dañ siy taxaw quoi waaw mu bëri mu néew ak sëñ Bamba ñoom ñëpp waaw ñum Cheikh Moussa gaa yëpp bàyyi ma kenn ay ñu moo ndaw xam nga ndaw moom man dama naan du ma ko sant sax parce que maa ngi moom mooy loolu moom sëñ Fallou waaw di gërëm ñëpp waaw mooy ñëpp rek sareet yeeg bureet yeeg puus puus yeeg ñëpp a ah, gis nga loolu lañ koy defee di la joxaat benn rendez ak beneen émission ziar ñoo ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax jaajëf.